am na maire dara feesatul bëtam lenn moo ko dese ci CVM muy mu nekk président de la république mu dem Barth jàppale ko ñeneen jàppale ko bi mu demee ñi gañee ko Barth war boot nag liste bi loolu c'est normal parce que Aminata Mbengue Ndiaye gisoo ko ci liste bi am na ñu bari ñoo xamante ne ñoom Abdoul mbay mii ma lay wax nii

j'ai oublié son nom là, euh, il a retiré sa, sa, candidature hmm. dans la liste départementale, hmm. n'est-ce pas hmm. Et il a soutenir euh, Barthélémy Diaz. Et mm, euh, Amadouba, Amadouba, vous m'excusez parce que le tour de Amadouba, il a retiré la liste départementale pour euh, Diapale Diaz. Mais quand vous les stratégies, Amadouba, Barthélémy Diaz, Amadouba, Macky Sall, l'année con, mon premier ministre, n'est-ce pas Macky à un certain moment ñoom Barthélémy Dias dañu amone coalition moy coalition y Askan Wi n'est-ce pas di andak hmm. Ousmane Sonko di euh, di di manam, euh, maanaam mais à un certain moment da nga gis Amadou Ba mu nekkone premier ministre retiré euh, listom départemental mu ñëw pour soutenir Barthélémy est-ce que yolu loolu tamet est-ce que du contre nature non loolu du contre nature loolu c'est logique et c'est tout à fait normal loolu moy li wara. am ah bon pouvoir boo jàkkaarloog mom mu yor pouvoir yep mhm. ñu koy doog fal mhm. dafa saf nit ñi fim ne jeeg bu jar lañ <laughs> ñooñu pour nga xex ak ñom doole ngay xex ak ñom mais bu ngeen demee de mhm. façon dispersée vote yi dispersé ñi jaar ni ñi jaar ni lolu parti au pouvoir bu ñëwé de leen di écraser kon c'est tout à fait normal Barthélemy comme soxla na Dakar soxla yenen Amadou Ba tam soxla fenen Macky Sall ak euh, takku wàllu soxla fenen ñu ne nañ def ben bloc au niveau de Dakar ñi voter liste euh, sàmm sa bu ñu demee Saint-Louis ñu ne kat fii Benno Bokk Yaakaar muy Macky Sall moo fa gën a am doole ñu ne fii list takku wàllu la ñuy voté bu ñu demee Touba ñu ne fii kat waa PDS ñoo fi ëpp doole ci seen grenier la ñoo fi yàgg di gagné ñi jiital ñooñu. affaire bi noonu la mais nekkul dafa bàyyi dafa yàbbi li mu seexoon kii mais déedéet dañuy ànd mayante doole kenn ku ne fi nga gën a am doole mbaa ñu yaakaar ne fa nga gën a am doole mm-hmm. ñu dooleel la fa fi nga xam ne danga fa faible nga jàppale ñeneen ña fa nekk yooyu it fi nga foor ñu jàppale la loolu c'est tout à fait normal et c'est euh, logique mais du mm-hmm. kaawu lu mel ni ay ñoom Déthié Fall Déthié Fall li mu def franchement dit man xaw ma nuñ ko mëna a Wa c'est c'est c'est la politique ah <laughs> c'est la c'est wa <laughs> mais c'est la politique hein chef. Wa <laughs> c'est la politique xam nga li ñu la politique c'est le cimetière des amitiés ndeysaan ni ko Babacar Justin di waxee. exactement mais lu melni ni Samba Ndiaye tey jii waa boy am nañ droit wax nañ dëgg ndax yow mëno nek 12 ans ci Macky Sall. Macky Sall wàcc. nga dem and ak ñëlé alors que yow t'as traité Ousmane Sonko de tous les noms d'oiseaux lu ne wax nga ko amna lo xamne même mom Bassirou Diomaye il est le président am il n'est pas censé de xam lepp ndax bo xasse ba nek président amatoo jotu di surveiller Cheikh Dia lan la woon ak lan la defone ni ak ni lolou dañ ko ci dimbali mom mais dama ne lolou boy Pastef yi li wax deug la xam nga Bassirou Diomaye lim def c'est tout à fait normal il a le droit de nommer au poste civil et au poste militaire parce que mhm. mo am prérogative boobu mais boy itam li def non neexul ci xol neexul kii doon xas di saaga comme ànd ak Mimi Touré rek Mimi Touré jàppale ko mu nekk PCA loolu itam dafa metti maître Malick Sall mi nga xamante ne Ousmane Sonko fii la taxaw ne musiba weesuwul maître El Hadj Sall un homme d'un d'une très grande arrogance boo xamante ne hmm. buy wax à la day mel ni ku jéppi nit ñi maître El Amadou Sall taxaw ne man je vais pas répondre au coup de pied de l'âne. mais mais mais loolu Ousmane Sonko de l'âne de mbam moo mais loolu tay ñi ne rallié na dem. mais yoyu dafa. voilà parce que parce que peut-être dañuy ñëwaat si si côté transhumance benen benen benen jour. Hmm. mais aussi euh, bo euh, moy cadre yoy ngay wax nonu parce que un politicien yoo xamante ne tu envisage par exemple un jour euh, être à à la tête voilà. Euh, de la nation ngay ngay tenu un propos parce que on a on a vu maintenant avec la technologie maintenant les les images hmm, ça reste n'est-ce pas le plus looy des des mais nous bëri beaucoup les campagne bi nous hein, bëri euh, la coalition euh, de Barthélémy dirigée par Barthélémy am am amuñu programme. non loolu wax la xam nga <laughs> Barthélémy à mon programme parce que parce que parce que parce que parce que voilà le parce que ñoom bo boo passage fépp fu ñuy jaar. maanaam Ousmane Sonko la ñuy wax Sonko Ousmane Sonko. mais c'est normal Sonko ñoom la nekk di attaqué ak di xupp nit ñi ak di wax ni. non mais Ousmane Sonko moom moom moom daf leen daf leen di sànni benn xeer. waaw eh? ñu sànni waa xeer ñoom ñoom ñu retardé ñoom ñu retardé si Ousmane Sonko. c'est moom mi ngi si yeneen programme parce que Ousmane Sonko fépp muy jaar région bu muy jaar dafa day teg programme. déedéet chaque chaque région si. fii ni nga ko waxee ci Ousmane teg programme waaw yow peut-être Ousmane Sonko nga suivre moom nga bàyyi xel non non ñoom ñëpp non dama la wax rek mm-hmm. dama ne mm-hmm. même bu dul yow sax mm-hmm. kenn ku ne man tey jii mën naa ne Sénégal kese laay gën a suivre mbaa ma ne sàmm sa jikko laay gën a suivre c'est normal parce que kenn ku ne ñi nga xam ñi nga miin mbaa ñi nga faral ñooñu ñoo la gën a intéressé le reste doo wax ci ñoom lu dul ni da ngaa dégg wax nañ ci yow nga xool li ñu wax ci yow non nga fayu à la hauteur de li ñu fayu ci li ñu naan loi du talion moom Ousmane Sonko moi attaqué ni ni et ça c'est normal c'est tout à fait. il violence bi ñuy wax violence bi ci ñoom passer le la jógee. ñom lañ fi gis imam seen ay nit. li la mais la taxaw né nañu dolel xalé yi yi ci réseaux sociaux yi ndax ñi ak ñun ñi écraser ñoom la ñu gis seen waa ji dof bi ñuy naan docteur Diallo <laughs> taxaw naan ku àndul ak ñun ñu ñaf nangam taanu. waaw <laughs> ah. bon ak yéen. ñu ngi jégalu si si profo <laughs> waaw continuer non continuer jaaruma ci kii uh-huh. Uh-huh. mais ñoom la ñu gis ñiy wax di kii yenn yi en uh-huh. plus ñoom génnuñu naqarlu ko. mbaa ñi def ci communiqué mbaa ci wax à l'exception di président de la république mi génn démb condamné violence yi mais ñoom ak ñi nga xamante ne ñoo yor appareil état beeg yooyu kiiw yooyu ñu ci yàbbi alors que programme yi fi mu nekk nii. Mhm. xam nga ñan ñoo ko war a teg jëmmal ko carrément. Mhm. xanaa xam nga Ousmane Sonko moo ko war a gën a teg ndax moom moo ne man bi ñi nga xam ne yeneen ma fal mbaa ñun ñi nga xam ne yéen a ñu fal da ngeen mhm. ñu war a jox assemblée. jox assemblée pour lan pour lii. ak lii ndax lii ak lii manqué na lii dafa war a ànd ak lii kon bu mm-hmm. ngeen ñu joxee lii dafa war a ànd ak lii mais ñee itam taxaw nekkat kii bu ngeen ko joxee lii àdduna bi day tukki ndax dèjà yéen leen jox lii muy tëkku nit ñi naan dañ ma leen di tëj moom mooy tëj di tijji moom mooy jéggale <laughs> moom mooy menacer nit ñi di def lépp il est le premier ministre la ministre de la justice le ministre de l'intérieur mooy lépp gis nga mbokku Casancem yi gis nga liñ ko tontu démb ci waxam jooju noonu mu wax ci menace yi mu doon menacé nit ñi li nga xam te ne à la limite n'a pas sa raison d'être côté boobu tamit euh, man Euh, manam wa gis naa vidéo bobu ma ñi ñi génne wax wax tamet euh, ñu ne tamit tamet rafetul dañ dans le nord euh, le premier ministre war ko exposer si la place publique hmm. n'est-ce pas peut-être on va y revenir sur ça un autre jour mais c'est aussi man damay ñëw cadre politique parce que Barthélémy hein sur une télévision de la place xam nga lan la wax mu né ñom bu ñu majorité à l'Assemblée nationale salaire du am avion du naw Hein? même bu vous ne beneen propos de loi bu ñëwee. gaa dañ koy kii assemblée nationale. ñoom coalition bi. ñoom coalition ñoom coalition bi yëpp. mu bu ñu bu ñu jëlee euh, majorité à l'assemblée salaire du am sàmm sa kàddu waaw sàmm sàmm sa kàddu ak ñeneen ko maanaam coalition bi quoi waaw euh, avion du naaw hmm. euh, salaire du am hmm. ben même benn proposition bu proposition xamante ne maanaam ñoom dañuy bloqué le comment dire le travail de de l'État est-ce que loolu est-ce que loolu tamit yow de déggoo déggoo wax woowu ah, man de franchement di lii nga mhm. wax nii mhm. ci yow laa ko déggee

Neko ko kat yow an at sangam manam at 2024 de 2025 nangam lañ la tunnel. ministre yep ñew def sen marathon budgétaire ñu voteel len li ñu war andal mais bloqué mba saler salaire du am mais opposition depuis kañ lay fay salaire bañ mom mu yox lool ah, en tout cas en tout cas kopu hoy bu fekkente régie régie régie régie yor na vidéo wowo assemblée nationale bi ngay gis mhm. xam nga lan mo ci gëna a lan moy bloqué assemblée nationale pour man limay wax nak moy li ma la wax léegi ne sama personnel gis-gis la mooy Ousmane Sonko mii ak Pastef bu ñu gaj bis bu ñu gañee euh, assemblée nationale. ci la ñuy gën a bloqué ndax si jamais anomalie mbaa euh, pépin am diggante bas Bassirou Diomaye ak euh, Ousmane Sonko. mais si boobaa ci la ñuy paralyser yëf yi ndax Bassirou Diomaye dootul am doole boo xamante ne dina mën a doxal pourquoi parce que amul député député yi kenn leen am muy Bassirou Diomaye alors que kii. jii mooy Ousmane Sonko ndax mooy le président Pastef bañ na ko ba ne ñëpp nañ ñëw ci bannière Pastef la ñuy demee alors que bannière Pastef falul Bassirou Diomaye kon Bassirou Diomaye foofu dafa def erreur Bassirou Diomaye coalition Diomaye président ñoo ko fal mu ànd ak ay coalition gis nga Ousmane Sonko bi mu waxee loolu la preuve maître Moussa Diop mi nga xamante ni parti am la yor dafa génn ne moom député kenn du ko ko def te du dem ci bannière parti politique Mais, mais, mais Ousmane Sonko, c'est le maître du jeu. Du, du, du jeu hein? C'est le maître. Du jeu de Pastief, mais pas de ce pays. Nous, euh, parlons de ce pays. Oui, mais à travers, on, ouais, mais à travers les images, on a vu. Hein? à travers les durant cette campagne. C'est une honte pour le président Non, non, ce pas une honte. parce qu'il en fait partie. Non. Le président n'est pas. Djoma est présent, mais il en fait partie. Il est inclus dans, dans, le passif. Non, bon, moi, moi, je suis Ousmane. Moi, moi, je suis. Moi, je suis pour le président mbaa loolu boko ko waxee day confirmer ñi wax le président de la république auprès du premier ministre alors que loolu waru nekk xam Ousmane taxawon na wax ko ne ko Bassirou Diomaye ngir mettre la en l'aise mom ci Ousmane ci bopam waxon na loolu ne ko yow demal defi say voyage di dem di ki mais lu jëm ci walu politique ak yoy baye maag ñom ma kii ak ñom alors que ñun li ñi xaar moy que ni mu taxaw ne ñu en tant que premier ministre premier baril pétrole bu Sénégal yalla dogal na ni ñu suñu ay la ñëwé ba suñu Birame Souleye Diop yëkkati indil ko Bassirou Diomaye ci pale bi léegi premier baril bu ñu ko amee ñi ne pétrole la ñi ne carburant la ñi ne nii ak nii la dañ doon xaar ñi retourné wu ne ñu kat courant bi carburant kii bi électricité bi day wàññeeku dañ doon xaar ñu ne ñu électricité bi subventionné nañ ko mhm. ba banque mondiale li mu ci doon wax léegi ñun mhm. ñoo jëlal suñu bopp en charge électricité bi di ko wàññi mais gisuñu loolu li ñu doon xaar mooy premier baril ñëw na ñu nekkat kat léegi dinañ subventionné njàng xale yi ba nga xamante ne xale yi inscription mbaa yooyu gratuite lay doon ci école yëpp amul benn école booy fay liñ doon xaar comme premier baril ñëw na ñu ne ñu bourse familiale yi nga xamante ne bi ñu ñëwee ak léegi fayuñu ko ay la kat léegi dinañ ko fay liñ doon xaar ci premier baril ñëw na mooy leneen ak leneen mais gisuñu ñu def loolu alors que loolu ñun lañ doon xaar. la voilà <laughs> li nga li ngay wax noonu am na solo lool franchement parce que temps bi moom euh, presque jeex na euh, da ngi ñëwaat encore euh, si ci wàllum champ politique aussi man. Euh, def Barthélémy Dias loolu sama sama gis-gis. Hmm. Euh, en tête de liste. Hmm. man mom est-ce que cela nous préférer n'était pas préférable euh, ngi def Anta Babacar. non. lu tax Anta Babacar politique fim nek ni ki wagu ci. nek na candidat à l'élection présidentielle. mais loolu moom jéem na jéem na def. jéem na def oh, na élection mu lancé ci campagne élection présidentielle. waa Anta demoon na. waa demoon na waaw dama ne demoon na loolu rek la kii wagum ci politique. te day doog a door politique. Mm-hmm. dëgg la du xëy du ëmb day xëy wasin. waaw mais moom dafa desee lu bari lu mu war a ràmpe. Mm-hmm. moom fi mu ne mënagul jiite amagul prérogative yooyu. boo seetee même présidentielle bi mu dem nii. Mm-hmm. c'est sa première fois. muy doog ñëw dugg langue politique bi avant présidentielle bi pratiquement ñu bari xamuñu Anta Babacar. man xaw ma ko woon. yow xamoo ko ko woon est-ce que xam tête de liste yéen du caaxaan de est-ce que xam nga ne nit dina diriger tête de liste te du ko diriger pour nekk député mbaa pour dem assemblée mais pour gagner élection yi la boo déggee Macky Sall ne la man biñ ne ma tête de liste d'accord naa ko ba tax ma démissionner les quatre P et muy pacte Paris xaw ma lan pour kii ak yooyu P yooyu c'est pour am majorité confortable mbaa majorité écrasante écrasante à l'Assemblée nationale mais c'est pas pour qui tête de liste moy moy déterminer liste bi moi moy locomotive bi nga xam te ne mooy xëcc ñëpp ñu topp ci seen mais kok ante Babacar Ngom amagul représentation bi euh, euh, nationale bohama tenez war na mën a tête de liste xam nga mhm. man d'accord n'a nga ne ma Bougane waron na dem ci liste bopam ba nga ne Pape Djibril Fall comme démon na ci élection yele passé mon mu demaloon bopam ba am député amaana bi pa bu demé dem nga député am sa député ken mayu lako nga dem présidentiel am li ngay am presque ya jël huitième wala 10 ans. Mhm. kon koku mom waroon na dem Bougane ngay dani mi nga xamanteni élection bu musoon na ñew du bootu ci kenn day demal bopam. Mhm. parrainage ñuko ci japp légui koku bo d'accord na nga ma dafa waroon demal bopam. mais Anta Babacar Ngom franchement di tel na pour mom pour.